lan ci lu xew. baaxee leen alors nañ def si ki nga xam ne ni moom moo nekk c'est euh, c'est <laughs> d'accord alors jaxase na ma sax ay waay jërëjëf. ay yow dèjà jóoba jubba kaay may ma perruque gis nga perruque bi de dama koo for ci mbalit mi rek daal di koy cëppoo yéena ma gën a xam man duma sangu man fi ñu toll nii xoolal semaine yàlla duma ko sangu deux deux semaines laay toog après troisième semaine bi après je me lave ah je vous fais un ma perruque ndax perruque bi ci mbalit mi laa ko foree comprendre nga voilà je coucou <laughs> alors alors euh, déjà merci beaucoup. <laughs> alalu Sonko waa d' accord kaay may ma yére ndax aw ma ay yére ñëwal dégg nga tontu naa léegi. ay 700000 lay fay fa. aywa aywa aywa aywa jile. aywa jile amin naa ah, de bu leen may lu ko may. non non nañ ma may déedéet ay buy ma mayeen ma perruque sama perruque bi daa moo may leen ma ay yére aw ma yére. alors merci beaucoup. alors euh, nañ dem si nga xam ne mooy ay Aïssa Rassoul donc c' était c' est la première fois ñu gis ki nga xam ne mooy Aïssa Rassoul euh, ay coow am mu daal di si yéeg yàbbi je crois que li nag naan euh, nit bu demee ba sës rek sës na parce que tamit temps yëpp ñoo dégg mariage bi nga xam ne mooy dem si bétti ak nga xam ne nii moom mooy famille Ndiaye. <laughs> nekk góor la. maa maa ngi doon liir nii. Simon mooy laajte ndeela la mu ne ko ndeela góor la ah moo ni woon kat xaw ma kan bu daanee nañ ko wooyee ndeela moo tax ma ne ko ndeela di ni bu Balla Gaye daanee tafaatin nañ ko woowee ndeela hmm. moo tax ma ni ko ndeela alors merci beaucoup euh, comme ni ko waxee woon sànq c'est la première fois ñu gis affaire bu garaaw ay sa rasul euh, daal di génn yëkkati ay kàddu gannaaw ba mariage bu amee mu bëri ay coow lu bëri bëri am na sax ñu dem ba naan ay sa rasul ak nga xam ne mooy euh, asi ñoom ñaar ay xarit lañ euh, que ñu leen ñu complot ñii ñu ñoo complot donc moom man xam naa dafa dem ba sës mu ni il est temps que ma hmm. jamono ñenn ñi. donc moo tax muy digoon benn vidéo bi nga xam ne moom loon defal moo doon def si wàllu social bi nga xam ne Sénégal yëpp lañ ko xamee koor gu jot ñépp la ñuy xaar kii di Aïcha dem Thiès si dëkk yi nga xam ne ñoo wër Thiès wala sax. ay euh, dëkki yu ndaw ndawaan dem yóbbulee fi li nga xam nii moom moo nekk ay euh, xéewal yu bari bari bari bari di si dépensé tamit ay millions te bu mu koy def maanaam boobu amagul woon sax li nga xam ne ni mooy jëkkër donc ñun daawoon nañ fa dem foofu sa Thiès donc ñu ngi koy jaajëf bu baax a baax donc moo tax mu daal di bind ne ñun lii rek la ñu xam ñun lii la ñu xam maanaam social bi muy def moom la xam def lu baax di ko wax jàppale doomu aadama yi yal na ñu yàlla may mucc bu rafet. amin yaa rabbil alamin te musal ñu ci nit bu bon yàqatu yàqakatu der yi voilà maanaam fam ñoo xam ne dañuy yàq der di ko wax loo xam ne peut-être moom yëgul mhm. euh, tinul mu daal defaat beneen vidéo gis ngeen vidéo boobu moo dressé ànd ak ki nga xam ne ni mooy lu wax sànq maanaam vidéo boobu euh, kii li nga xam ne ni moom mooy euh, binet moom doon ko wan sànq donc publicité bi nag may na leen ko waa Zedor après ngeen fay ñu dégg ngeen non may na leen ko ñoom ñun leen bëgg ñun leen bëgg dëgg. Euh, nañ ñëw nañ ñëw sponsorisé émission bi. nga may sànni xeer. kan. Euh, ah. ma ne ko ma ne ko ma ne ko comme dóoruma la saaku ciment rek sant. d'accord mu ni lii mënul ànd ak ay wax yu sew fa yàlla. bu góor wala bu lu baax def lu baax mënul ànd ak ay wax yu sew. Hmm? merci euh, mu nekkoon réaction bi nga xam ni nii kii di Aïcha Rasoul def na ko nee macha allah nga ne dani ñun lii rek la ñu xam def lu baax macha allah yàlla ci yàlla ko suñu suñu borom yàlla saxal ci jëf ju baax jooju gis nga momoo jëf ju baax kenn du ko def ba réccu ko mais man j'aurais euh, dama dama bëggoon xam ndax li ñu wax ni daf doon ànd ak béti wala moom moo ko moom moo tax ba moom ak Baye Ndiaye ñu xamante loolu moo tax muy ton walla elle répond à quoi pas des rumeurs comme comme ni ko waxee yooyu bokk peut-être yooyu bokk na si. peut-être yeneen yeneen bokk na si c'est juste que ne peut-être comme ni ko waxee. des fois nit dina la wax loo xam ne peut-être yow yëgoo tinoo. et lu donc man man man dama doon préféré. Eh. Mhm. Eh, donte ni mu tontoo neex na ma nag. Mhm. ni mu tontoo nii neex na ma. mais man dama doon préféré mu bañ a tontu xanaa xamoo cell xutti na gàttuk waxkat dégg nga ma. dama ne bu ko répété waat cell noppi na xotti na gàttuk waxkat. dim di ma xotti na gàttuk waxkat. lan mooy gàtt. non non mais mais. non non boo moo ne mu moo mu moo dimbale ba fii maay tontu na naa ñu doog a dem. lan mooy gàtt. gémmiñ. voilà. nañ maanaam ñun ñun ñuy wax ne olof dafa métti nañ fexee dégg nag yenn olof yi ba noppi. moom déggul olof moom teel nañoo wax boppam. gis nga gis nga moomoo xanaa xamoo moom lim lim doon defee rek day day tax ku ko gis jox ko cër donte ñàkk ñu koo jox cër nag ndax tubaari la xale la waaye defagu fi lenn luñ koy xeebee liggéey social déggalaguñ ko li ñuy déggal yenn xale yu mel ni moom mbaa ñu tolloog moom as bi mu toll. ba mu tollee ci am jëkkër daf koo am laataa moo am jëkkër yaa ko wax ñu ko gis ci social bi ak liggéeyam bërki déem boo njaay pot mi ngi koy seedeel béti di wax ni j'ai formé Aïcha Aziz prix xawma nu mu ko waxee noonu donc voilà donc prix prend lépp benn la lépp jël la rek putain ah, lépp jël la nga ma prix prend di fooyal sama xel mi donc moom ba mu waree liggéey dafa liggéey ba mu waree def social da koo def nit ñëpp xam ko ci macha allah gis nga nit bu rafetee xolam rafet kooku dara jomb ko te wax dëgg yàlla ñun gisaluñ ko dara loo xamante ni rek nit war na ko koo mën a waxal ba mu di ko yëngal parce que yow koo xam koo xamante ni xale nga mel nga ni nga war a mel musuñu la waxuñu la waxuñu dañ laa gis ci baar yi te Sénégal fii lu na lañ lay waxal. loolu loolu papa Ndiaye coppe naan boo boo mënee dank te rëy boo doo ponkal tey rëyub tibb lu ne lañ lay waxal dafa am loo xamante ni sénégalais moo nit bindoo fii yaa ngi fi doon xale am jom ñu lay gis ngay sañse belli duñ moom moom foo foo doo leen mën a teree wax parce que foog ñuy wax pour mën na déstabiliser léegi nag forte in force intérieure boobu nga xamante ni amoon na ko man dama doon préférer mu continuer ko est-ce que dégg ma bañ a tontu benn bojo bojo ndax léegi nii rek moo nooree mi ngi koy wax am na ci ñoo xamante ni ñi ngi ŋàññ Wally Ballago Seck ñu ci bari boo leen yeewoon xaaju guddi ne leen suba nga mel ni Wally du ñu nelaw moom laay bantuwaat ci ay Aïcha Rasoul mii am na ñoo xamante ni tey jii xale yoo xamante ni amaana sax ñoom ñoo ko mag bu ñu sañoon bu ñu xëyee mel ni moom. donc ay waaw dëgg parce que baax yombul. alalu yàlla te xaritam bala koy jox. dégg ma moo tax man je préfère mu bañ a dugg ci benn détail parce que nag peut-être euh, tonton Aziz Aziz Ndiaye doon nañ doon nañ ko dégg moom aussi dafay tontu ci ay commentaire euh, ku ko wax mu commentaire la ci su loolu moom voilà loolu habitué nañ ci mais moom. dafa dafa yaru il est timide belle elle est macha allah joviale boo ko gisee ba ñi ngay njëkk seen Aïcha continuer continuer ci lancé boobu noonu bu la kenn déstabiliser bu la kenn wàcceel sa dignité bi nga xamante ni moom moo nekk ci yow donte sénégalais yi boo boo boo boo amee noo dinañ la jéem a pantal jéem laa dëngal jéem laa xóotal mais yow continuer fonceel bul tontu benn bojo bojo c'est ça. waaw Aïcha Rassoul Aïcha Aïcha sunu Aïcha la. Mhm. Aïcha Kids. wallaay yàgg naa fi wax Aïcha Rassoul sunu Aïcha la. Mhm. déggee Aïcha Rassoul sunu Aïcha la. newoon naa la Aïcha dafa am du singoom ji nga am def ci mbir artistique mhm. te singoom seen noori ni noori si singoom. am na yu bëri yàlla doog a baax baax xam nga baax baax. baax ci boppam Aïcha ko gën a baax. jëmmi baax ci boppam ay ko gën a baax. Mhm. jëmmi amee teggin ci boppam ay ko gën a amee teggin. moomoo mhm. xanaa xamoo ni koo gis muy xastante ak a xaste ndeyam ak baayam ci xaste lañ ko jur <laughs> ak foo mënte xaste mhm. koo gis muy xastante ak utal nit sikk moo def ak moo def mel nga nii meloo nii sa mhm. ndey ak sa baay ba ñuy piij piijal dañ doon xastante moo tax boo ci juddoo wax lu ñaaw ngay xam dangay xaste yaa ngi yaa ngi fil noonu la demee kon tax ay sa kon mun euh, ay yow ah daf ko bëgg daf ci xolam da ko nopp ah du yow fii laa toog nga naan ko koo dee tirital mu naan ay sa kon ma ma tàcc nga ne ma du moom waaw yaa ngi dégg moom moo la weddi woon maanaam mbir yi mbir yi mbir noonu la demee ci anam gépp gis nga Aïcha ndeysaan góor gi nee na c'est bon des fois ngay tontu Aïcha bàyyiwul xel góor gi moom ak fu mu mënte nekk na ko yàlla defal jàmm ku la bëgg la ndeysaan gis nga xanaa xamoon ni nana mm-hmm. cent personnes duñ la jéppee wax loolu bon allo asalaamaaleykum maaleykum salaam <laughs> na def ñoo ngi sant maa ngi si biir émission bi na dafa jeex dama tardé. yaa ngi ci yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir. mën <laughs> na ko ci loolu. ah mu ngoog dama <laughs> dama bëggoon a participer si Pape Diouf bi ak kii naka du ma ne Pape Diouf sax na Pape Diouf ak Waly kenn waxul Bousse laay wax ak eh, naka cousine bi. cousin cousin man Gambien laa xaw ma sax moo tax. Ah. la <laughs> dëgg la. ah ok yaa ngi man lu ma lu ma jàpp mooy Bousse dafay tooñ rek. waaye moom li muy wax sa gëmu ko dafay tooñ ndax olymp jeux olympique moom <laughs> ku ne bëggut faa dem loolu wax la Pape Diouf ku ko yeewoon ne ko kaay dem si jeux olympique bi dina fa dem wax dégg na yàlla ndax buuse loolu la dee wax rek amoon na temps foo naa yàggoon na ñaari at si gannaaw wala ñetti at si gannaaw Pape Diouf ak Waly buñ bokkee woon daat Gambie Gambie <laughs> ñëpp soon nañ ñu fa demee di ñetti fan yooyu tuuti mu rey ko waaye Boucher moo mel noonu dafay dafay ekkati artiste am bu loolu paasee bu gala bu loolu paasee ñetteeli fan bi dafa fekk Pape Diouf si oto bi nekkoo ko ah yow toog nga fi gis naa ne sa joué bi nal ne la contrat léegi nga jógee signé contrat sa pour déwén pour si si at bii di ñëw nga joué waat Pape Diouf naan ko xay na kay. at boobu noonu ba at bu ñëwaat waali dem na gisuñ fa Pape Diouf loolu moo laa wan ne comme mu ngi bëggoon a xam ne fu xam ne fu mu ne nii suma artiste daanu na waali ñetti xaw na koo rey Pape Diouf ñaari nit ñi gis mooy ñi tam ñu joxoon ay dënnu ñoo fa nekkoon ndeysaan man mi sax dama ko yëre moom ndax ñun ñu nekk Gàmbi ñoom ñoo xam ne waali ñetti at fan yu muy tëdd Gàmbi dizaine ma ngeen koy woowee. waaye bu bu bu loolu weesoo sax bu ñu pour mu ekkati Pape Diouf rek woon ko ne yaa ne dafa dugg si sédapam bi naan ko xay léegi nga jógee si ñëwaat contrat déwén te déwén boobu doon xaar dañ ko ñëwatul waale ñëwoon ba a ñekk ñetti at Pape moom mii ne xaaral suma la rek waaye xaaral ma def noonu rek pour xolam neex soo loolu la rek fans la fans moom mu muy waxee dama koo jàppee rek waaye gisee ma ko lu garaaw man nag ma xam ne fan si waali laa waaye gisee ma ko lu garaaw. macha allah waaw Pape Diouf nag kenn du ne munut woy loolu moom ku ko war a ñëw na ndax ñun balaa waale di jóg Pape Diouf lañ woon. Gambie xamoon nañ ne tànn moo waaw ñeneen musiciens yi ku ñëwoon doo gis nit jamono ju nekk nii nag ku nekka sa taa nag wax dëgg ne yàlla Gambie moom Pape Diouf su ko tasee waale du ko doon bu xaar bu waale demee bu waale demee décembre na xaar ba janvier wala février mu door a dem xëy na dina am nit waaye décembre moom bu fa tasee waale du ko doon ndax gisoon na ko. loolu ñëpp a ko gis yéen journaliste sa demoon ngeen foofu seen see demoon ngeen si si si si bés Gambia di di seetaan dugg si lii vidéo yaa ngi fi vidéo moom du naxaate YouTube boo fa tapé gis ko décembre waaye fu mu ne nag ndax Pape Diouf moom itam si tooloo woon na fi si merci beaucoup ala Ousse yaa ngi woon euh, maa ngi woon ci Aïcha yàlla dogal xam nga man comme awma ci nattu damay jékki-jékki kon xool gis euh, sama wax bu ma bëggoon wax Yolande waxal ma ko fii. Mhm. Yolande Gomis mooy Aïcha na roy ci Miss Ndiaye xam nga lu tax nag ñu koy royloo it ñun si Miss Ndiaye. Mhm. ba mu fa ñëwee ba léegi ànd bi daa rafet te liñ gis dafa rafet. gisuñu mhm. ñaaw. ku gis lu ñaaw ñoom nañ ko gis lu ñaaw mais ñun li ñuy gis. Mm-hmm. bu ñu waxee dëgg ñoom bu dee li ñuy dund dëgg la li ñuy wax bu dee dëgg la lépp a rafet te net lépp a neex ba ci mariage tout tànk Aziz Ndiaye bi bi ñëwee ku mu njëkk a dem dafa daagu ba ci doomam rakkam muy Aïcha mat na ko doom rakkam la akolaat ko mu ko fooree feccandoo mm-hmm. Sénégal gépp bëgg kon na ko roy ndax aawo bu la nangoo boot te ndiggam liis lool amul yi béjjën goreel ba bu ko jaay ween yu rëy wala béjjënu dënn mm-hmm. Mm-hmm. nga nit sax bay béjjënu dënn dënn olof a wax ndax béjjënu dënn mu ko fi am di dëmm waaye mm-hmm. entre nit ma la nit bu la boote te am ci yéene ndiggam liis lool gorel ba bu ko jaay ween gu rëy te la nga gis ba bëgg ko moom moo ko toppatoo sang ko ba nga bëgg ko bu ko futiloo woon doo ko xool macha allah nañuy fexe di di xool nag yu baax moomu jigéen dangay xool lu baax mm-hmm. surtout maa nag boo jugee ci milieu dugg ci nitu milieu di sëy ci biir milieu ndax seen lépp milieu la. Mm-hmm. yaa ngi ci milieu ci lañ la xam milieu tax ñu xam la ah. surtout xale yu leen gën leen neex maa ngi jégalu sax ci kàddu gën a am yeneen ak yeneen ñu ngi maanaam nit ñi xamuñ leen boo demoon àll ba boo demee Saalum yow dee siin boo fa demee ay tabaski da naan mais xale yi. Mm-hmm. jigéen soor noonu. Mm-hmm. feneen ak feneen noonu. mais ci saayir xamuñ leen parce que duñ nit milieu. moo tax xëy na gars yi duñu leen xam yéen milieu tax nga xam leen bu dugal ko ci milieu ba ngeen nekkaat ci milieu kon jëfi milieu day ñëw ba léegi waaye ban milieu dañuy xool ndax bu dee ci football kii milieu relayeur la mooy def huit moo ci baax nag numéro huit relayeur. mën a composer ak ñëpp waxu offensif waxuma kooku de ku ñu wax nga rëcc daw ay réglé. kóol dal am tey am tekk nit moomoo boo nee damaa zone rek gorel bul jéem a sax beege zonal rek man loolu laa xam ci nit boo nee zone xoolal zone ñuul kukk weex tàll xonk cur rek man man man man man man man maa ngi jégalu foofu la ma foofu la may cuqee foofu la may neexee quant nag diggante ay kii ko may kii kii ko may kee kee ko may kee bu ci tontoo daa ñàkk fayda Baye Ndiaye bu ñu ko bu ko ay sànni dugal ci teen bi dina fa dugg. wax dëgg yàlla. buñ baxalee sansal diwlin zador ba muy jëf-jëf mu ko ne yor ci loxoom bi dina ko ci yor. mag lu mu def moom la neex buñ ñu rey. fii kenn du utal Baye fu muy aw ak fu dul aw. joom de amul heure. billaay joom naa. kenn du wax lii ak lii ak lii kenn du ko ne nii ak nii kenn du ko ne nee ak nee te Aïssa bu mayee Baye njaay sax nit moo tay te te daf ñu wóorul waaw waaw man man man moom li ma li ma man li ma sentir nii laay wax man waxuma ni moo am de. Mm-hmm. ma ne bu ko ko mayee moo tay mm-hmm. rakkam la sañ na gis lu baax gars yi naan ay wujju peccor ga dëgg la mais sañ na gis lu baax. même bu dee xaritam mu ne ko diw ak diw dama ko bëgg te yàlla tax caaxaan amul mu may ko bu amee faf sax da ko ko mayut gis nga nag moomoo yii ci bëri di am ci genre affaire sëy yi xam nga ñan la xariti jabar yi xariti jabar yi ak Sénégal yi waaw xariti jabar yi surtout. surtout ñooy nekk ci snap bi. di dugal créer ay faux compte mooy wane ni ay duulkat leen ñemewuñ Mm-hmm. <laughs> non dëgg la non ay faux compte TikTok. ay mm. faux compte Instagram ay faux compte Snap. Mm. di fen di nettali jaru ko jeeg nga piir te ñoom ñi nga xamante dañuy wër di fenal ñiy sëy chaque jour ñu tëddee leen jox leen 2000. pare ñu doomu càgg bu ñoo sonal ak yow. Ah, merci beaucoup jégalu jégalu yéen leen wax doomi naa gëmu leen ma suñ directeur daawatu. après loolu la si wax. man mu gis naa ko ca suuba ca tudd ba. Hmm, te waxoo ko. Racine Kane lañ tuddee doom moom lañ ko tuddee suñu directeur dañ ko tuddee doom dégg ngeen tey félicitations. sérieusement. Ousse li nga wax dëgg. d'accord après loolu comment <laughs> alors <laughs> man de wasu bee ma jommal waaye joomi amul jaajëfe bu baax baax euh, comme ni ko waxee nag comme ni ko nenaa waxee ak nga xam ne mooy Ousmane wax na lépp ci Aïcha Collé parce que sax xamuñu ko loolu suñu directeur dañ ko tuddee doon Samb Yéri Mata Diallo d'accord si jëf lu baax la <laughs> xam euh, social donc directeur mosuma xam ne tur bi nii la guddee exactement alors alors bu ñu paree foofu bu ñu paree foofu si euh, nga xam ne mooy Aïcha nañ dem si li nga nii moom moo nekk mère Aïcha Aïcha la bu ñu paree foofu si nga xam ne mooy Aïcha maa xalaat déggoo yaa ngi. national bio. Eh, bio xaar xaar tuuti. après ah, foofu il faut